assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi ànd ak seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di jégglu rek ci simili yu néew yi ñu doon xaar maanaam bàkk wi lañu doon nekk machine bi mooy yeex ubbeeku ngir ñu mënoon a jot ci jës bub sëñ Matar Jaane ñoom bi nga xamante ni bii mooy bàkk wi kon ni ñu ko baaxoo rek dañuy nuyu ak ziyaara Sëriñ Muntaxa Mbakke ñu toog toogaayu ku tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu Serigne Touba gépp di nuyu ak a ziyaara Serigne Bassirou Anta Niang Mbacké mi toog toogaayu borom Darou Mouhty ñaan sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu boroom Darou Mouhty gépp waaye di ñaanal Serigne Abbas. mi mu fi wuutu sunu borom yokk ay leeram te taas nu ci barkeem moo bokkam yam fa nekkal yépp di nuyu mbokk yi safoo chaîne bi ba waxtu wi bu jotee ñu ànd ak nun ci waajtaayu màggalug daru xam ngeen ni sama doom Omar Bamba Diop mi ngi ci waar wi xam Ceerno jot na nu nit nag nu féetewoo jéem a xamle lenn ci njabootu borom Daarul Muxti am na sax ku ma gis mooy wax ni lu tax toppewoo ko nañu magante may xam le ni xam le njabootu borom Daarul Muxti jubluwuma ci lim njaboot yépp ndax réseaux sociaux yi man dafa bokk ci samay principe lim njabootu kilifa wala ay dendandoom dafa bokkul ci li may def ndax gis nañu li muy jur ba tax na njabootu borom Daaru Muhti dama ciy tànn ji nga xamante ni mën naa leen a waxtaane ci seeni jëf ndax ñu man leen a roy ndax borom Daaru Muhti ak njabootam ku ci mel ni sëriñ Ibra Fët Ñang ku ci mel ni Serigne Chouaïbou Serigne Omar Mbacké sëriñ saaliwu ba ci sëriñ abdu jamil màggal gi ma ko tudde woon muy yóbbu gi borom daaru muuti yóbbu woon leetar bi sëriñ Touba yónni woon ko ci gouverneur sëñ kos abdu jamin mi toogoon ab jataayam yàlla na sunu borom yokk seeni leer daf ne woon moom sëriñ ay Aydara moomu yebaloon euh, wax ci sëñ abdu jamil daf koy jafe te bëggula sos wala muy wax lu nekkul kon li nu jublu ci xam ne njabootu borom daarul mooti gi man dafa bokk ci samay principe lu ci bari dañ fi yebal ay elaw ñu ñëw di ma laaj njabootu borom daarul mooti ma ni leen li ma leen mën a wax mooy xalifa yi ko wuutu ak li ñu fi jëf doy na waaye duma lim njabootu kilifa kon euh, xam le ker no jot na li ñu jublu rek mooy tànn ci ñooñ li fekk màggal gi ñu leen mën a waxtaanee ngir ñu mën a roy ci seen i jikkoo xam leen itam waaye ñëwunu rek ngir lim njabootu borom daarul moxti ñuy nuyu di ziyaara sëriñ Abdou Aziz Touré xalifa sëriñ Adi Touré fu mu toll di rafetlu li nuy def di ko ànd ak nun sëriñ Xaasim Mbakke sëriñ Muntaxa Bachir moom sëriñ Mouhamadou Mourtada nekk ci États-Unis ak kuréelu googuy jàppale seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV te Cheikh Ahmadou Bamba Mbeng jiite ko ak sëriñ Basiru Fall ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di nuyu ak a ziara ak sant ndaw loo xamante ni surtout borom daarul moxti la nekk ca France waaye la muy sori sori Sénégal mi ngi dund ak taalibeem muy sëriñ ahmadu Ndiaye moom sëriñ Cumbuleen Ndiaye ak soxna Maymunatu Mbàkke bintu sëriñ Aydara moom borom daarul moxti mom xam na wàccuwaayu maamam ma nga ko koy delloo xëyam ak ngontam mooy liggéeyal maamam borom daarul moxti kon noo ngi ñaan ci daraja yi Serigne Touba borom Daaru Muxti yàlla na egg te eggale yàlla na ko sunu borom sàmm moo ko njabootam di siyaare Serigne maam Thierno Serigne Daarul Manaan mi toog toogaayu ki ñu bëgg a waxtaane tey ndax tey Cheikh Sidil Maxtaar Serigne Cheikh Awa Balla moom la ñu fas yéene eh, waxtaane kon dañuy beral nuyoo ak ziyaara alxaaji maam no ak njabootu Serigne Cheikh Awa Balla gépp ak waa Daarul Manaan gépp fas yéene ñëw nag ci jëmm joo xamante ni ci njabootu borom Daarul Muxti ngu mag gi ci la bokk ñëwoon naa ci magam sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Modou Habib ñoo ñoo ko mag waxoon naa leen itam fa ñu feeñee jëmm ji ñuy waxtaane tey nag di Serigne Cheikh Awa Balla mu ngi feeñ ci atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñetti téeméer mille ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett sëñ Cheikh la mu ngi feeñ ci atum mille huit cent fan la feeñe mu ngi feeñe guy nguraa guy nguraa fi nu toll nekkatul waaye boo demee tuubaa ci corniche bi foofu ñuy wax héliport boo fa taxawee digganteem ak mbake Bawol foofu fa la nekkoon xam ngeen ni mag ñi dañ daan tegtalu ci ay garab ndax borom Daaru Muxti bi mu tàggoog Serigne Touba ca mbake Bari ñëw Mbacké Bawol te sanc foofee tolloog mbake sëñ Moussa Ka nga koy wax maam Thierno Jàll sanc tolloog mbake ñu naa ko ëpp lëw danañ ko sànki bañ dellusee noon ya di tex texi ree naa koy dundal njaboot gi wëy danañ dee moo ba borom daaru mu ci ay jafe-jafe ak njabootu sëriñ Tuubaa gi sëriñ Masoogi Silla di waajuru sëñ Matar Masoogi ba tawat ja tàbbee te sëñ Modou Moustapha tawat Cheikh Mamadou Amin tabak tawat Cheikh Mamadou dee daal di nelaw moom moo listixaaraloon borom daaru ni ko da ngay toxuta dem sanc fee ci guy ga muy guy nguraa borom daaru dem sanc foofee fa la jëm ji di yaaxafaar zuno sëriñ Cheikh Awa Balla gane jamono mu yetti at yi nga xamante ni sëñ bi dem na te kenn xamul ci moom dara ba ni Abdoulaye Ndour bàyyi ko Gabon sëñ bi yóbbante ko ay leetar ci borom Darou Mouhty mu ñëw fekk ko guy Ngoura ci la ko sëñ bi joxe ndigal ngir mu sañ ci Daarul gi nekk diggante Touba ak Mbakke kon sëñ Cheikh Awa mi ngi feeñ ci atum 1898 mu ngi feeñee guy Ngoura waaye juróom ba mu jotee ngir sañ ci Daarul Manaan dégg nga sëñ Moussa Ka mu ni boobee la cheikh Sidi fer fa daaru juddoo fa guy nguuraa ba am nag daaru yoor yoor ba cheikh feree leteen ba bënn ca takkusaan gaskat ya dal di génn kon suñ Cheikh Balla mu ngi feeñee guy nguraa waaye sunuy nopp li ñuy wax feral ba muy toll ci ñaari at la waajuram sanc darul manan gi nek diggante Touba ak mbacke ci ndigalul Serigne Touba bi jang jotey ci moom itam ñu borom daaru mu ci def njabotam gep ba mu jangé ba bind ab kamilam borom daaru ci jox nako ko serigne bi serigne Modou mustapha lako serigne bi bolel mu jàngal ko xam-xam ak bëgg xam-xamam moom sëriñ Cheikh Awa Balla tax na ba mu fa bàyyi ko ñëw Daarul Muxti dafay bàyyi ko dem Ndar ndax booba xam ngeen ni borom xam-xami naar yi daan bàyyi ko Muritani di ñëw Ndar bari woon nañ fa lool ak bëgg xam-xamam nag tax na mu dem Ndar ngir jonjoo ak borom xam-xam yooye ngir yokk ab xam-xamam xanaa ñuy fàttali rek ni sëriñ Cheikh Awa Balla soxna Awa Balla Diop mooy waajuram mu jigéen mu bokk ko ak sëriñ Modou Awa Balla ak soxna Fati Awa Balla la ma waxoon ci sëñ Modou Awa Balla rek ni boroom daaru mooti mooy waajuram waaye mooy nijaayam sëñ Cheikh Awa Balla itam borom daaru mooti mooy waajuram waaye mooy nijaayam kon dem na ndar ngir yokki ab xam-xamam waajuram borom darul muti bayiko ko muti dem njaareem ci serigne bi serigne bi laaj ko niko ana cheikh muniko cheikh de ma nga ndar serigne bi niko ko nañu mako wol bi borom darul muti ñewé la yoni ndaw mu dem ndar wolu serigne cheikh awa ba mu ñëwee borom daaru moo sëriñ bi de moo lay woolu mu daldi dem wuy ji sëriñ bi njaareem ba mu demee nekk fa ak sëriñ bi ba ni sëriñ Tuubaa tànn Cheikh Mahamadul Amin di sëñ Baara boole ko ak sëriñ Cheikh Awa Balla loolu moo tax sëñ Baara bi mu fekk see sëñ Amar Fall Mbakke moom sëriñ Mbakke Kayor Mbakke Kayor ba ni mu ko sañcale pémcum boppam mi mu bokk fa nekk ak sëriñ Cheikh Awa Balla bu daan génn moom la fa daan bàyyi bari na ci njabootu Cheikh Mamadou amin ñoo xamante ni ba ñu feeñee sëñ aw Awa la moo leen jox aw tur sëñ Baara tegoon ko fu kawe ba tuddee ko ñaar ci ak njabootam comme ko njëkk a tuddee sunu borom da koo jël mu tuddewaat ko sëriñ Cheikh Mati Lay si Sidi Makhtar mii nga xamante ni toogoon na di ñaareelu sëtub Serigne Touba bu toog ci jataayam Serigne Cheikh Awa Balla moom la ko sëriñ Bara tudde joxoon ko ko it ba sëriñ Cheikh Mati Lay Serigne Cheikh Awa Balla mooy turandoom waaye moo ko yar man sama dégg Serigne Cheikh Mati Lay yàlla na sunu borom yokk ay leeram mu ni am na at moo xamante ni bii day nawet bi taw bi dafa néewoon lool lool lool nee sëñ Cheikh Awa Balla bind ab leetar fasal ma ko ci sama lafu mbubb ca daarul manaan gi nga xamante ni am 1933 la ko sëñ Cheikh Awa Balla sanc mu doonoon daaray sëriñ Abdou Mbacké doon kenn ci jëwriñi borom daarul Muxti su Cheikh lay nee na ba mu demee Mbàkke Kayoor ci waajuram bi sëñ Baara feccee leetar ba jàng ko ba noppi daf ko ni boo demee neel Cheikh su fekkee daa bëgg mu taw na la bëggal bu la bëggalee rek mu taw sëñ Cheikh Mati lay nee na bi ma dellu see Daarul Manaan wax loolu sëñ Cheikh Awa Balla nee lu nekk jox na ma ko ngir bëggal ma ay kees yi suukar ab xaalis nee na lu nekk jox na ko ko waaye na ko waajuram waxe woon boobee la sunu borom daal di indi taw ba ba nawet ba mucc ayib lool kon sëriñ Cheikh Awa Balla Serigne Touba moo ko boole woon ak Serigne Baara mu nekk ak moom ba ni mu sañcee Daarul Manaan te bi mu ko sañcee sax jullik tabaski ak korite Mbàkke kayoor la ko daan jullee ji ca Sëriñ Bara moom sëñ Cheikh Awa nag li ñu wax ni yoonu murid yi daf cee am ñooñ dañoo jëf jëfi xalifa te doonuñu xalifa ci seen kër wayjur ku ci mel ni ci Mahamadul Bachir ca Touba Serigne Cheikh Awa Balla mi itam dafa jëf jëfi xalifa te doonul xalifa borom Daaru Muxti nekkoon ci wetu ñaari magam yooyu di sëñ Modou Awa Balla ak Serigne Bara 1927 bi sëriñ bi ñibbisee Touba moom sëñ Cheikh Awa Balla mook Serigne Bara mbakke Kajoor lañu ñu ko ngir dem Touba kenn ku ci nekk yor sa wata bi ñu ñëwee bay tolloog fii forage Daaru Muxti bi nekk fi marché bi nekk léegi wax nañu ni oto sëñ Baara dafa paan mu wàcc ñëw dugg ci oto Serigne Cheikh Awa bala moom la àndal ba dem ci xew-xew ba moo tax rawaan mbay mi bind ci teesam bi ni sëriñ bi bi mu laqo ñent nit ñoko yobbu Touba muy Serigne Basirou serigne bara ak ak bëkk ci la akum akom katam Ahmadou Tandéxiyu la muy wax xamu ci dara serigne bara bi Serigne bi di ñibbu ci Touba booba mu ngi mbacke kayo serigne Cheikh Balla nak sunu borom jaglel ko jaglel ko xamanteni gu fés la woon mu dëkkoo kenn ci njabootu sëriñ bi di soxna may munatul suxra wala soxna may laylatul xadar mi caatum sëriñ Tuuba mu jigéen moom ak magam sëñ mu daw bàll nag ñu feesoon lool matoon itam la ñu doon sëñ ma daaw wuutu boroom daaru mooti sëñ Cheikh Awa Balla nekk ci dëkkam bee nga xamante ni bokk na ci turu daarul man daan kër Cheikh ñun bu ñuy gone oto yi daan jóge daaru jëm cilmaxa danga nga daan dégg ñu naan la altu kër Cheikh laay wàcc mooy daarul manaan mu taxawu dëkk ba ba bi mu fi jógee 1976 gis ngeen ni ko Alaaji Maam Thierno def soo demee ci marché yëpp sëñ Modou Awa Balla ba maa ngay wax ca biir marché ba ni njeem ñaari doomi soxna Awa Balla ñoo xëy ni mes ku yebu jaamu yàlla maa ngi ci jublu sëñ Modou Awa Balla ak sëriñ Cheikh Awa Balla moo tax ma ni njéem ñaari doomi soxna Awa Balla ñoo xëy ni mes ku yabu jaamu yàlla te xam ni que mbër ma fi daa faj ajo tey jii la raw ku yabu jooy ba xaaju moom sëñ Modou Awa Balla mooy bàyyi Maam Balla sëtub Maam Balla ma jooy ko jaal ko soxna Awa Balla rakkam je Cheikh muy sëñ Cheikh Awa Balla moo njëkk a fekki Ceerno fa daarul manaan taaw ba des di Cerno ki lee yoroon jalaal ja ak jamaal ja di sëñ Modou Balla këlee meloon ni gaynde ak jomam ja di sëriñ Cheikh Awa Balla ki tabax teeraas na miir na bayti fa borom daaru muuti tëdd di sëñ Modou Awa Balla këlee taxoon ñu denc bàyyam bayti di sëriñ Cheikh aw Balla ki lee fi yor moominatum Cheikh Bamba di sëñ Modou Awa Balla këlee fa denc soxna may moom Bamba di sëñ Cheikh Awa Balla kilee ganee jamono moom fa Mbakke di sëñ Modou Awa Balla këlee fa guy nguuraa fa dend ak Mbakke di sëriñ Cheikh Awa Balla ma ni nag maam Awa Balla sëb liggéey rafet na wàcc nga yow jaajëf sa doom yi raw na kooku mooy sëñ Modou Awa Balla ak sëriñ Cheikh Awa Balla ca way maa ngi wax ni këlee di bàyyi Cheikh Ibrahima kile di bàyyi Cheikh Ibrahima kële di bàyyi soxna Bali Mbacke sëñ Modou Awa Balla Bali soxna moomi kële di bàyyi soxna Bali Mbacke sëñ Cheikh Awa Balla di waajuru soxna Bali moom soxna May ma ne nag maam Awa Balla sa liggéey rafet na wàcc nga yow jaajëf sa doom yi raw na kon doomi nijaay borom darul mox ci jooju nga xamante ni bi mu ñëw ci ëttam bi da ko defoon kilifa def ko ab sëriñ di soxna Awa Balla Diop ab liggéeyam feeñ na ci ñaari doomam yi bi mu nekkee ci kër borom daarul mooti dafa laxasaayi woon di muritu na ko donga yi doon def coono yam fa doon daj kere bi sëñ Modou Awa Balla tukkee ci biir réew mi sëriñ Cheikh Awa Balla tukki booba tukki moo xew ñoom ñaar ñépp kenn ku ci nekk dëkk ba nga dem ñu reyal la fa aw nag nga jël fàllara ji yónnee ko borom daarul muuti yaari fàllare yi nag daje ci barabu borom daarul muuti bii bàyyi ci sëñ Modou Awa Balla jóge ci fa mu doon tukkee bii bàyyikoo ko ci sëñ si Awa Balla bàyyi fa mu doon tukkee ñaari fàllare yooyu ba mu dajee borom daarul muuti dafa yónnee woolu soxna Awa Balla Diop ba mu ñëwee mu ni ko fàllare ji moo doo ko fi yónnee fàllare jee cheikh moo ko fi yónnee di ko wan ni la nga doon liggéey kon pay gi tàmbali na koo koy soxna aw balla Jóob moom mayib aw balla moom sëriñ kokki njaga isa moom ahmadou fa xujje moom sëriñ maxtaar ndumbe mi sañcoon kokki moom nag du sëriñ Cheikh aw balla li ma leen wax ni ku ràññeeku la woon am fu ko borom daaru muuti tegoon ndax loolu ma wax ni këlee tabax teeraas na miir na bayti ki lee taxoon ñu denc bàyyam bayti si Cheikh Balla bi borom daar mu ti di ñibbi àjjana ndakaaru la ko fekk mu jóge fa ñëw Bambey ànd ak rakkam Serigne Ousmane Mbacké bi ñëwee Bambey ñu takkal leen fas sëñ Ibra Diop moom sëñ Matar Samba moo a ko nettali nee na dañ leen sant nun danoo dox ba mu ñëwee te fekk xew-xew bi xew ba ko magam laajee ni ko ndax sëñ bi waxoon na la dara sëñ Cheikh Balla ni ko waaw néegam bee di bayti mu doon fa jaamoo yàlla daa fa dugg xalwa day romb jaadam gee fa mu nekk neewoon na mooy barab bi wax nañu sax ni am na ay yeneen wax yu jógoon waaye sëñ Cheikh Balla moo ubbi ab cartable am daal di cay génne mbind jox ko magam sëñ Modou Habib sëñ Modou Habib ba mu ko xoolee ni aaw lii de mbindum Ceerno borom daaru muuti wax ca ni néegam boobu di bayti mooy baraba kon sëñ Modou Awa Balla ca nungoo diisoo ñoom war a diisool ba mu laajee rakkam sëñ Cheikh Awa mii moo ko xamal ni ko boroom daaru muuti ne woon na bëy ci mooy barabam moom sëñ Cheikh Awa itam moo ñaanal boroom borom daarul muuti jéggulu ci waxin wi te mooy ku fi bàyyi ko liñ lay defar muy jullee moo ko defal borom daarul muuti ba mu noppee rakkam sëñ Abdourahman moom mboroom daarul muuti ba mu noppee rakkam Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké ñoom ñoo ñaanal borom daarul muuti kon jëmma ngi woon noonu ju teel a sotti sunu borom joxoon ko daraja lool mu doonoon jàmbaar joo xamante ni na waajuram defoon gor ay àll sañc ay dëkk magam sëñ ma daaw ball def ko moom it noonu la def moo ko sëñ ma daaw ball ca yabal jóge fa sañc daaru minan pet jóge fa sañc daarul wahab gee soxna may mën ci soxraa féete woon sañ fekk na mu sañc daarul benaan en 1933 waaye ci itam fi nga xamante ni mooy Touba Roof dem ziyaare gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam en 1952 kon jëmm ngi noonu ju jëf-jëfi xalifa te doonul woon xalifa borom darul mooti waaye defe naa ni yoonu murit xam nañu kan mooy sëriñ Cheikh Awa Balla foo ko tudd ñëpp xam nañu ko kenn la woon ci njabootu borom Daarul Muxti taxawaay bi nga xamante ni taxawoon na ko itam taxawaay bu mat sëkk la woon dégg nga ñuy nettali ni fi naa am na gouverneur bu ko gisoon di ko laaj ni ko ndax yow Cheikh Ahmadou Bamba mooy sa waajur sa Cheikh Abala ni ko waaw waajur la ci man de waaye rakkam Thierno Birahim mooy sama waajur nee nañ gouverneur ni ko ah Thierno Birahim mu jub ma ku jub ka Thierno Birahim mu jub ma mooy sa waajur kooku mooy yaa xafara zunub Cheikh Sidil Makhtar nga xamante ni boo demee Bambey boo demee Mbaba garage boo demee Tiwaawoon jàmbaar la woon joo xamante ni ak njàmbaaram lëndi woon na lool wër Sénégal kon dafay baax seenu dund ñu ko waxtaane lépp waaye nag léeg-léeg ñuy fàttali gone yi ndax ndeysaan jiitoo na magam sëñ ma daw balla juróom benni at sëñ Cheikh avril 1976 la wàcc ab liggéey jamono jooju moo ngi daje recensement général de la population du Sénégal 1976 kere bi muy làqu mi ngi ma que Taïf Diop may recenser Taïf Touba Belel gi nga xamante ni booba dañ koy dooga sañc nga xamante ni ma ma demee ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yàlla na sunu borom yokki leeram daf ma ni danañu la saytul li nga bëgg nga xamante ni dañoo dem ci daara yi rek bind Abdoul Ahad mu wàcc léegi nag yaa ci soq Diop Abdoul Ahad Diop Abdoul Ahad Ndiaye Abdoul Ahad jamono jooju ci weeru avril ci la Serigne Cheikh Awa Balla fekki boroom daarul mooti kon jàmbaar yi noonu doonoon ab liggéeykat décoration yi nga xamante ni waxoon naa leen ni Serigne Fallou am na ko sëñ Modou Balla am ko Serigne Bassirou am ko Alaaji sëñ Tàkko am ko moom Serigne Cheikh Balla miitam itam décoration décoration yooyu am na ko ba décoration bi nga xamante ni njiitu réewu Sénégal bu njëkk di Senghor moo ko ko décoré moom ak magam Serigne Modou Awa Balla gis nañu vidéo bi ak photo kon daal jëmma ngi nii joo xamante ni kenn la woon ci njabootu boroom Daarul Muhti di ki nga xamante ni bii moo féete woon kër Cheikh wala daarul manaan eh, xanaa nuy ñaan rek sunu borom yokk ay leeram yàggal fi sëriñ maam Thierno mi toog ak jataayam ak njabootu sëriñ Cheikh Awa Balla gépp mbokk yi kon mel na ni di ñu nu jagleeloon ci waxtu muy fanweeri simili mat na kon dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaax ngeen abonné rek ci seen chaîne bi di xam sam réew nu ànd ak yéen ngir xamale leen ak njabootu borom Darou Mouhty suba incha allah sëriñ Abdourahman mbake moom borom Darou Mouhty jàmbaar ji yeesalaat daarul mën naan gi nekk diggante Touba ak Mbacké moom la ñuy waxtaani suba noo ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf Radha. Radha.